wu jëriñuk aada ci programme renaissance africaine moo nekkoon thème bi ñuy waxtaanee ci xew-xew bi nga xam ne dafa daal di coïncider ak bés bi nga xam ne si la njiitu réewu Afrique xaatima charte culturel bu dendu Afrique ci atub 2006. ñi yëngu ci wàllub aada ak cosaan nag Afrique dafa war a topp yoonam waaye nag dafa war a jokkalante itam ak àdduna wërngal këpp. parce que àdduna bi il faut Afrique waxtaan ak moom diversité culturelle dafa baax nekk bu baax li nga xam ne say la. Euh, waaye nga siggi nag xool ñeneen ñu wax ak ñoom looloo tax renaissance africaine boobu nag la ñu bëgg a euh, Bouba ñëwoon fii expliquer ko ñi nga xam ne moo di euh, public bi ñëwoon tey. ouverture comme ni ko njiitu réew Sénégal ba woon di Léopold Sédar Senghor waxee waaye nag professeur Boris jopp jàpp ne war nañu tàggoo ak lenn loo xam ne ci tubaab yi lañ ko jëlee. il faut euh, briser complètement. dañ fi war a jëlee yenn cee ay aspects bokk ci bibliothèque coloniale bi. bu ñuy wax waxu découverte Afrique kan moo ko découvrir ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a def tour Afrique ñoom ay africain lañ jaarale ko ci lii di navigation loolu yëpp nag war nañ cee dellu. africain. Euh, par la navigation par la par donc il faut qu'on revienne sur tout ça pour que les Africains. renaissance africaine nag nekkul ab thème bu bees ndax nag ñeneen ñu ci mel ni que Léopold Sédar Senghor wala Cheikh Anta Diop jot nañ ci wax tey nag ñi yëngu ci wàllub cosaan ak aada ñoo taxaw ngir indi seen wàll ci développement bu Afrique moo waral sax seen xew-xew mi nga xam ni dafa nekk ci édition bu njëkk.